waaw man maa ngi tudd biram Khoudialo nekk troisième secrétaire général adjoint PASTEF di wax tey ci mbir mi nga ma laaj muy mbirum mambay Mbaye Niang mi ak Ousmane Sonko affaire politique la affaire bëgg empêcher Ousmane Sonko dem 2024 la affaire caaxaan la parce que nit ki bu fekkee da nga jël alal kii ni police ka jël jàpp ñoo ni gendarmerie ma jàpp terewul nga nek ku nga xamni da nga jël alalu rew mi Mame Mbaye que IGF wala IGE épinglé que Mame Mbaye a été bel et bien épinglé lolu nak kenn mënu ci sukkandiku pour di gundu xataal Ousmane Sonko wala ngay fexé pour mu bayyi genn ci élection yi Ousmane Sonko du genn ci élection yi dina nek candidat en 2024 du Adji Sarr du Mame Mbaye encore moins sen chef muy président Macky Sall mënuñu téré Ousmane Sonko mu bok ci élection yi en 2024 loolu muy benn waaye ki mënul bok ci élection yi en 2024 nak koku moy président Macky Sall ndax constitution bi mo ko téré constitution bi mo ni que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs comme loolu amna nak ñun dinañu jël initiative taxaw créer li ñuy wowe na dem nouvelle alliance na pour le départ de Macky dem na dem na dem na dem dem na dem Ousmane Sonko vous bu dinañ ko c'est quelqu'un qui xamni ne mënuñu ko reprocher dara dara dara dara lutax du dem élection du ci du ci lenen kon nañu pour délo que nous nañu liñu doxal il faut que lolu leer